di nuyu honorable député chers collègues di wax rek ne li ñëpp wax rek duñ ci revenir ah, parce que trois minutes la ñu am merci pour la respect que vous imposez vous de vous et le ministre des finance et du budget xëy na waa boor bi ñenn ci ñoom rek ñoo xaw a doy waar <laughs> moo tax des fois ñuy gis yenn yi <laughs> waaye ñu ngi leen di remercier pour li nga xamante ne si yéen a ngi koy def par rapport ak liggéey bi nga xamante ne si moom ngeen def au niveau de l'État du Sénégal Monsieur le ministre par rapport au à la gouvernance du marché du travail ñu gis ne ci revalorisation salaire yi am na ci ñoo xamante ne si ba léegi ça peine à être effective maintenant ci loolu ñuy laaj yan mécanisme vous en partenariat avec ou bien en collaboration avec le ministère des Finances yéen a ngi koy def au niveau des différentes structures étatiques tout comme privées pour xam ndax revalorisation yooyu c'est effective exactement ci li nga xamante ne si moom mooy société yi di leen remercier par rapport ak euh, les agents du ministère de l'éducation nationale en commission on avait soulevé qu'il y avait des gens qui avaient effectivement qui n'étaient pas euh, par l'augmentation ils ont dit que le ministre les a reçus ba réglé nañ li nga xamante ne si moom mooy seen situation wax nañ ne sa sera effective fii ak ay fan monsieur le ministre beneen bi par rapport au contrat de travail xam nga bu ñuy liggéey ci ay société dañuy wax nañu dañ lay defal parce que loolu mooy norme bi CDD CDD après CDI mais da ngay gis ne dañ ñuy dem ba day bi day ëpp dañ lay def CD CDD CDD jékki-jékki xëy rek bàyyi la ci loo xamante ne si peut-être norme yu di am te loolu en général ça touche ñi nga xamante ne si ñoom ñooy la couche jeune exploitation da ci am ci wàllu liggéey bi ba bu ñu paree rek ñu mën a ñëw dañ lay bàyyi loolu aussi bëgg nañ ngeen taxaw ci beneen bi monsieur le ministre muy dellu par rapport au ciment aux agents du du du ciment du ñooñu dañu nekk ci ay difficultés peut-être société bi société bi société étrangère la mais jàpp naa ne le ministre doit s'impliquer pour dimbale ñi nga xamante ne si ñooy agent yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk pour ñu mën a revoiraat seen i conditions de travail parce que exploitation dina ci am benn beneen bi euh, contrat yi nga xamante ne si moo leen lié ak ñi nga xamante ne si mooy ñi fa nekk am na clause yoo xamante ne si duñ ko respecté beneen bi le droit syndical c' est consacré par le code du travail mais da gis ne foofu booy dem di ko def sax dañ lay intimider pour bañ nga def li nga xamante ne si mooy sa li la war beneen bi par rapport à une couche waxoon naa ko muy euh, ñi nga xam ne dañu nekk ci domaine des médias en l'occurrence la presse seen condition de travail yi doon na loo xamante ne si le ministre war na ci taxaw xool ko bu baax a baax pour mën leen dimbale ñu xam bu baax fi nga xamante ne si moom moo war a mën a yokk li nga xam ne mooy seen liggéey ci wàllu domaine boobu parce que exploitation yi bari na ci ak yeneen yi nga xamante ne si moom moo ci war je vous remercie <laughs> merci chers